yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ba léegi rek ñu ngi ànd ak yéen fii ci sunu quartier général bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal fii ci place de la nation euh, tey nag euh, yamook ajuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre deux mille dix-neuf. noo am nag jotaay bu am solo boo xam ne dañ ko war a am ak waa Ndar yi euh, ñi nga xam ne ñoo yore liggéey Touba ci kanam ci Ndar muy sëñ Rijal Seck. ak soxna Ramatoulaye Fall ak mboolem ñu ñu bokkal nekk ndar euh, ñu am nag jotaay boo xam ne dañ ko war a am ak ñoom ci gannaaw bu leen sante jaajëfal leen ci liggéey bi donte néew nañ ci doole waaye seen pëseef euh, saa su mi ngi dolli ko. mu mel ne nag ndar ji nga xam ne ci lañu jox ndigal ngir ñu sant leen gërëm leen soññ leen. ngir bëgg leen a yaatalaal liggéey bi euh, dañuy mbooloo moo xam ne liggéey ba egg na fa ñu bokk ca na ca ñëpp bokke di ca def lanu man ak donte seenub lim bariwutam jamono bu jot ñi ngi wan Touba ci kanam na leen fu ngeen teg seen tànk dinañ fa teg sunu tànk loolu ba ndar duggee ba Touba ci kanam duggee ndar ba léegi loolu mi ngi firndewu ci seen i jëf lépp lu nu man ci ak góorlu kenn du leen di jiitu ji dara sëñ Abibu nag nee na na ngeen xam ne liggéey bii du ab liggéeyam liggéeyub sëñ Touba la. da koo wooteel sëñ Touba te wóor na ne ku ci dugg ku nekk daa jàpp ne pas-pas boobu muy yëgoon bay wooteel sëñ Touba moo nekk ci yow kon nag bu ko ñëpp nangulee ànd ak moom ci liggéey boobee na ngeen xam ne fu ci waay yëkkatee ab bant mu sori mu jege yëg na ko te su manoon mooy ñëwal boppam ba fa nga nekk ne la jërëjëf. waaye nag ngeen jàpp ne kon ñi dox diggante nag moom te mooy di tàmbalee ci euh, sëñ Laat Abibu jaar ci sëñ Baare mii ba ci seen ñaari kilifa yi di sëriñ Rijaal Seck ak soxna Rama Fall mii nangeen ngeen jàpp ne seen i jaajëf ak jaajëfu sëñ Abibu ñoo yem ci mbooloo mi. sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax a baax ci jëf yi ndax jëf yi moom ab murit dari lu mu jëf jëf jëf faaw muy dégg acca ca kanam ndax liggéeyub sëñ Tuubaa moo doy. kenn waru cee doylu sax moo tax boo ci jiitee nit bu bu fekkente ne da ngay borom pësteef ki nga jiite bu yàggee dana jàpp ne sax yow danga nga koo bëgg a sonal wala danga nga koo bañ waaye fekk na yoonu murit moo amul noppalu kon nag bu leen sëriñ bi santee ci seen i taxawaay te jotaayu tey bii ak euh, liggéey bi ngeen liggéey ci yoon wi loolu firnde la ci ndax ndar sori na pësteef ngeen ñëwee waaye ba ngeen ñëwee ba léegi yéen a ngi ci liggéey bi muy guddi muy fu mu mën a nekk rek ku geestu gis leen ci liggéey bi loolu dangeen ngeen da ngeen wan Touba ci kanam ne Touba liggéey bi nekk waaye murid Sëñ Touba yi moom ñi ngi fepp murid ba ca Ndar ba ca Touba gënu koo yee ci Touba ci kanam loolu wane ngeen ko sëriñ bi nag kon nee na mi ngi sant mbooleem ñi bokk ci euh, Touba ci kanam te féete Ndar mi ngi leen sant di leen gërëm waaye nag di leen wax na leen liggéey bi des na lu bare bare bare bare bare te loolu yéen ñi jiite na ngeen ko xam. ñi leen jot a fekk si nañ xam loolu ña nekk ndar te dugguñ ci liggéey bi it nañ xam loolu liggéey sëñ Touba la boo xam ne sëñ tubaa moom buñ koy liggéeyal ndar kenn waru leen cee jiitu ñoo waral sax jiitu ci ci sëñ Touba ndax sëñ tubaa dafa am taarix yu rëy rëy ndar yoo xam ne néew na dëkk bu mu ko fa am ndax liggéeyu borom bii nga xam ne moom la ko sunu borom tegoon nga xam ne ñun ñëpp sunu texe àdduna ak alaaxira foofee la la la la ci liggéey boobu la sottee. ndar googu la ko sëriñ bi yanoo la tax ma ne ndar la ko yanoo mooy jógewul ndar Mbàkke Baari la jóge jaar ci ay dëkk yu bëree baree baree bëri ba egg ndar la tax ma ne ndar la ko yanoo mooy conseil privé bi ñu dajee bay xool lan la ñuy def sëñ Tuubaa dogal bañ ànd te mooy génn ko ndar la sottee kon liggéey bi jëriñ murit yëpp ndar la ko sëñ Tuubaa yanoo kon nag bu ngeen eggee ngeen xam ne loolooy ndigal li sant gee ci jiitu ak ngërëm gi ak ñaax yi ak rafetlu li ngeen jot weesu waaye nag di leen wax acca leen ci li ci kanam. diirub juróom-benn weer yi ñu romb am na ak soppeeku lool si ndar loolu nag ñu leen si jaajëfal bu baax a baax ndax lu jiitu juróom-benn weer yi daanan toog ñetti weer ba ñeent li daan jóge ndar day dugg si Touba Ca Kanam du romb ñaar fukki junni te fi mu toll nii néew ñu génn weer te dugaloon juróom fukki junni si Touba Ca Kanam loolu nag yittey xale yi la ak seen pas-pas kon li ñuy wax euh, waa ndar ci Touba ci Kanam ngir ñu bokk si ñaari millions yooyu yi liw murid yi nekk ndar bokk si faaw ñu am pësif ak pas-pasu xale yi ndax xale yi seen pësif ak seen pas-pas foog waaye nett passé na ko ndax ñii nekk Touba ñun ñi nekk Touba ni ñu doxee si Touba ca kanam si dajaloo di waxtaan di fekkente suñ suñ biir kër yi ñoom xale yii noonu la ñuy def chaque fukki fan ak juróom wala chaque dimanche bu ne daan dajaloo kër kenn waxtaanee Touba ca kanam xool liggéey bi ni mu ni mu demee xool la ñuy collecté. doxin woowu yi nag mbooleem kilifa yi nekk ndar tàmbalee ko suñu Amet Fall ma nga jiite war kuréelu ñaar rakk ya ak si Moussa Diakhaté mu yor comité scientifique ba nga xam ne ñoo ñëpp waxtaan na ñoom si liggéey bi faaw ñu woo xale yi ànd ak ñoom si liggéey bi nga leen teel te xam ne seeni doom lan liggéey suñu taan nag boo ba say doom dikk téye ko la doxal nga jëm mag a góorgóorlu a jàpp ñaar rakk ba mu daj biir ndar ba jàll ba dagana ñu yaatale ko Touba Ca Kanam ñu nekk seen doom di leen dox ay na xale yi am nañ lool lool lool waxtu wu nekk ñu ngi dajaloo ñu ngi réunion te lu Touba Kanam soxla bu soxla aw nit comme jii eh, nga xam ne ñu ngi nekk fii sama fii eh, Ndakaaru si masaale bi bëggoon yaatal liggéey bi ñoom ñëpp noonu dogg seen i te ñëw ngir Touba Ca Kanam nekk si jàpp si liggéey bi ba war a yokku nii passif bii xale yi yor na bu ko teel bay nekk ndar yi nekk ndar dugg si Touba Ca Kanam nga xam ne day dooleeku si li murid yi kon loolu ñu ngi si soññ waa ndar bu baax a baax di jaajëfal eh, xale yi di soñ ñëpp daal ñuy jàppale xale yi si Touba Ca Kanam ndax it Touba Ca Kanam moom jàpp naa ne baat bi daa firi boppam kon nag jëlatul kenn toog sax naan xam ma lii lu doon ndax ku jàkkoog réalisation yi am solo yi ñoo Touba Ca Kanam moo ko def te si ñetti mbir yi loolu war naa tax ku ne góorgóorlu xale yii bépp liggéey bu Touba Ca soxla bu dee social bi danañ ko dajale yónnee ko bu dee màggal yi nga xam ne dan dañ si bëgg yaatal liggéey bi danañ bàyyi seen yitte ñëw kon seen yitte ju kawe jii daal ñi ngi ñaan mboolem kilifa yi nekk ndar nga xam ne ñoo si tàggat si lu baax ndax bu leen si dogatoon duñ ko mën a am ñu dikk jàpp leen si liggéey bi ba tax liggéey bi gën a jëm kanam ñu ngi leen jaajëfal baax a baax sëñ Mourou ñu ngi leen sant baax di wax ne ni ngeen taxawoo xale yi rafet na xale yi tamit ñoo seen pësif rafet na lool jërë ngeen jëf kon Ndar dafa nekk histoire Serigne Touba jaar fa jaar bu yéemee sama fa góor yàlla dafa ay kéemtaan Ndar bokk si histoire yoonu murit ndax ni ko sama sëriñ sëñ Chambry Edouard waxee le 5 septembre 1895 heure ba ko waxee sa xel dem si conseil privé bii nga moo amoon Ndar te kii nga xam ne mooy Louis Mouté moo ko jiite woon kon ñun lii nga xam ne ñu ngi koy xalaat si liggéey bi Ndar ngir mu gën a yaatu ci wàllu communication mooy yaatal liggéey bi comme yenn gox yi ni ñu koy defee foofu Ndar bëri na ay rajo local ndax euh, am na ñu fa xam ñoo xamee ni euh, xam naa seen bëgg sëriñ Touba mais Ndar. nekk na dëkk boo xam ne nii communication bi su jaaree yoon rek taalibe yi nañu fëx fekk si leen yéen nga xam ne yéen responsable yi lu jiitu mooy ay spot publicitaire war ngeen ko def maanaam ay yéegle ay band yoo xam ne yu gàtt lay doon nga xam ne nii fu waay nekk si biir ndar dina xam ne ah fii kat jëwriñ bi sëñ Ridial Seck mi ngi fi soxna Rama Fall mi ngi fii seen numéro seen numéro téléphone mooy numéro nangam ku ko déglu nga xam ne su boobaa yéen yéen ñi di jëwriñ yi fi ngeen di toog di ngeen yëg ne yokkute am na. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi nuyu ku si moom ku nekk ci Touba ci kanam ñu ngi lay sant tàmbalee ko si sëriñ Abibu sëñ Baara mi jiite modification sëriñ Soyebu ñu ngi ñu ngi ñëpp. ñoo ngi sant nag soxna yi jóge ba ànd ak ñun li ak liggéey Touba ci kanam bi ñi nga xam ni sonn ñu taayiwuñu mën naa ni amuñu ku ñu jàppale. mën nga kenn gi mi soxna Aida soxna Awa soxna Maymuna Faal ak sëñ du Ndiaye mën naa wax ne ñun amuñu ku ñu jàppale ndar waaye ñoo ngi def lu ñu mën li sëñ bi wax léegi yëpp ñu ngi koy def ñoo ngi dem si daayira yi di soññaate xam naa dafa des rek ñoo ngi def réunion chaque weer bi daanu jël ñetteelu dimaas bi ñu def ay réunion di massifier ñoo ngi ñu ñaan daal yàlla gën ñu kàttanal ngir jëmbi Sëñ Tuubaa ndax ay ndaw lañu politique ñu def ñu dara am ñu lu dul liggéey Sëriñ Tuubaa ñooy ñaan Sëñ Tuubaa may ñu kàttan ba ñu mën a àggal liggéey bi ñu sumb ñi ngi sant Rijaal Seck di sant yaa Aminta Seck maire bu am Pastef Pa Ibrahima Dieng ay mag lañu waaye bàyyiwuñ ñu benn yoon ñu ñuy xelal saa su nekk ñoo ngi santaat yàlla bu wér a di ñaan nag waa commission massification ak waa communication ak jëwriñ ñu mag yi nekk ci Touba ca kanam ñu jàppale ñu defal ñu massification ndar ñëw fa indi oto ledd bi ñu dugg ci oto koñ yi massifié daal di def communication bi jàllale ko si rajo yi def panneau publicitaire yi def lépp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. soxna yi nga xam ne ñoom nga interviewé léegi ah, dañuy ay jàmbaar waaw ah, dañuy. liggéey ci xëy na seen matukaay demewul noonu waaye wax dëgg yàlla seen doole seen alal fekkewu ko ñun yàlla dafa dogal fa lañ nekk waaye li dañ dul toog li ñuy génn mooy bari waaw waaye taxut ñoom liggéey bi ñu teg ko ci suuf ndax saa yu ñu génnee saa yu ñu ñëwee rek bu ñu rendre compte dañuy dañ fay fekk loo xam ne ni dafa kawe suñu njoor waaw kon liggéey bi moom ñun ndar ay ndar lañ nekk xam nañ nu muy doxee. bu ko defee comme que euh, waa Touba ci kanam kilifa yi jóg nañ pour jàpp ci ñu xool nuñ gën a yaatale mbir yi bu soobee yàlla loolu dina am solo bu ko defee ñun comme que am nañ ci ndigal ah am na kilifa yu murid yu nekk ndar daañ dem ci ñoom waxtaan ak ñoom bu ko defee it ñoom it ñu ñu soññee waaw waaye li ñu gëm daal mooy waa ndar am nay taalibe yu am Pastef waaye nag ah, xëy na ñàkk xam am na ci waaw kon bu ko defee leeral gi dana ci am solo lool. waaw liñ ciy dolli daal di wax aussi mooy waa Ndar ñu gis ne seeni doom a ngi nii ñoom ñu ci bari xëy na xamante woon waaye liggéey bi dafa jóg rek ñu bëgg ko ci seen xol nekk def ci joxe ci Pastef bu ko defee ñoom ñëpp ci lañ jóg ñu daje bi ñu jógee daje ku ci nekk xam ne yow liggéeyal Serigne Touba moo la ñor ñu def seen bopp benn waaw ubbi nañ seen groupe bi WhatsApp ñu ngi jokkalante yëpp ñu ngi koy def. waaw bu defee nag ñoo ngi euh, soññ waa ndar yëpp képp kuy taalibe ndar ci xam ne liggéey liggéeyub Serigne Touba moom ku nekk ci war des ginnaaw ba des waa ndar waaw bu ko defee nag liñ leen di ñaan mooy ñoom ñëpp ñu jóg ñu xam ne liggéey baa ngi nii bu leen ci kenn raw tubaa ci kanam la ñu wax.